nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama taslima assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni ñu ko baaxoo defe ci ndigalal sëriñ bi dibéer bu jot ñu daje fii fàttalante ci suñu mbiri diine ci wàllu xam-xam saa su ne ñu koy taxaw fii di ko taxawee ci barab bi tey jii di ñetteelu dimaas bi ñu am gan gu mag nag gu tedd goo xamante ni bii du ñuy présenté waa cees wala barab bii du ku ñu fiy présenté muy sëriñ Mouhamadou Lamine Touré suñ ko doon xamle tamit lu gàtt rekk li olof di wax naan li sa ndax xam ci guy moom lañu xam ci moom waaye kon ñu wax leen ni moom sëriñ Mouhamadou Lamine sëriñ Ahmed Dame mooy waajuram wu góor sëriñ Ahmed Dame moomu ku xam zaadul muslim mooy ki nga xam ni moo ko liggéey muy yóbbalub jullit ñi doon liggéey boo xamante ni bii ñu bari ci Sénégal ci lañuy jànge seen farata ba tey jii ñu mën a toog sàmmonteeg seen diine man mii xam naa imaam boo xam ni nee na ma li mu jàng ci zaadul muslim la ko jànge te fa mu nekk di fa jiite ku ñu naw la fa kon kooku mooy waajuram wu góor waajuram wu jigéen tamit di yaa soxna Gay Ture yàlla nañ suñu borom tas ci barkeem te dolli ay leeram yàggay ture moomu bokk ak sëriñ saaliw ture lépp féete woon kook magit xanaa ku miin kër gi wala nga miin kër gi ca Tuubaa xam nga yaa gayture mooy waajuram wu jigéen kon moom mii sëriñ saaliw ture mooy ndijaayam moom nag mi ngi jànge alxuraan njaareem ci kër sëriñ moor mbay siise ba mu fa jàngee alxuraan ba wattu ko li ñu war a ci alxuraan yëpp mu def ko muy lejaase yi nga xam ni moom lañ ci war a am yëpp mu am ko fa ci la dellu Tuubaa ci kër sëriñ Moustapha moom sëriñ Saalihu foofu it sëriñ abi bu Mbàkke imaam jàngal ko mbooleem xeetu xam-xam yi nga xam ne ti war nañ koo jàng ab doomi soxna war na koo jàng waaye bi mu ci jógeet mu boole jàng ak jàngale doon gëstukat bu mag doon koo xamante ni bii tamit ku liggéeyal lislaam bi la ku liggéeyal yoonu murit la ndax ba jamono ji fii ñu toll muy li jëm ci wàllu tasaare njàngaleem sëriñ bi ak njàngaleem mag ñi ci wàllu nga xam ni day jaar ci wàllu réseaux sociaux yi ku ci teela a la ku ci teel a géeju la ndax ku miin touba point com moom mii mooy ki nga xam ne moo ko initié yor ko taxawal ko ba tey mën naa ni sit yu bëree bare bëri bëri fa la jóge juddu fa ñoom it di taxawal ci liggéey bi yemul ci loolu mu féetewoo jàng ak jàngale bisub tey bii xatoon na ci moom lool ndax nii ñu koy taxawale fii noonu la yore yeneen barab yoo xamante ne bii ñoo ngi koy taxawal te barab bu ca nekk moo yore taxawu ba ak li lijjanti ba ña nga xam ne ñoo koy def moo leen di saytu moo leen di jox programme ba ñuy yore mën nañ cee tudd benn rek bu mel ni alwafa ku miin réseaux sociaux yi ci wàllu alwafa di nga gis ñi tàmbali ga ba ci conférencier yi nga xam ne ñoo fa daan conférence ci jaayante moom mii ak jox gu mu jox yitte xam-xam daana jël otom bi taal ko dem ba dakaar jëli fa conférence indi ko mu def waxtaan ba noppi mu taalaat otom delloo ko loolu lépp ngir dundal taalibe gi dundal diine dundal xam-xam kon xam naa ni waaye ci biir lool barab bii ñu nekk di kër Serigne Touba di jàkke ji ñun ñëpp xam nañ ni moom mii la sëriñ bi jox li nga xam ni mooy julli iid yi mu koy taxawee di ko julli ay at te at mu ñëw rek dàq ma jàll xam naa ni du ñu mën a wax ci moom lépp wala li ñu xam lépp duñ ko mën a wax ndax waxtu wi xat na lool ba noppi xataat ci moom xataat ci ñun ñii ñëpp ndax léegi bi muy yegsi xew-xew dafa am Touba boo xamante ne bii bàyyi ko fa su ko fa bàyyi woon it faaw kon dañuy taxaw ci jox ko ngant ndax kenn ci mag ñi bokk ak sëriñ bi moom la soxnaam wàcc léegi ci midi ñu war koo jëlee Dakar yóbbu ko Touba xam naa ni bu fekkee yegg na tey ji Touba ñu denc ko tey te ñoom ñoo ko war a taxawu kon loolu ngant la moo tax sax ñu daal di tàmbali nii rek bu ñu paree mu ñu jéggal ko. intervenant yi mën a gàtt moom mu daal di mën a dellu ci loola xam naa ñun ba suba rek ñu waaj fekk leen foofu ci Touba kon daal su ko defee ñëpp maase teelu bu baax ginnaaw bi ñu nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk sëñ Cheikh ñi ngi imaam bay saawaalo ga ak kilifa yi ñu seqal liggéey bi yëpp di leen ziar sëñ Dame Kane di wax ne thème bi mu war a waxtaane tey day thème bu am solo di thème bu màgg di thème boo xamante ni bii jamono soxla na ko waaye mag soxla na ko gone soxla na ko jigéen soxla na ko góor soxla na ko àdduna ñoo ko soxla rawatina réew mii ñu nekk di Sénégal muy jëm ci wàllu gàllankoor yi nga xam ni ñoo nekk ci éducation rawatina fii nga xamante ne bi mooy Sénégal ni ñu ko organiser ak ni ñu ko taxawale gàllankoor yi ci nekk mu war cee waxtaan te képp ko la waxtaanal ci gàllankoor nag jox la ay solution kon su ko defee ñun ñëpp niñ koy waxe saa su nekk rawatina ñun gone yi nga xam dañoo toll ci njàng dëgg la ñi ngi enregistré waaye dañuy jël bic ak kayit di noté ngir bu ëllëgee ñu xam fi ñuy teg suñu tànk kon ñun ñëpp ñu maasee teewlu déglu di nuyu bu baax sëriñ Dame ture kilifa jataay bi te di ko ziar su ko defee kon Cheikh Mouhamadou Lamine tafaddal maskuura. bismillaahi rahmaani alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwani wattamkin mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq te di leen balu àq di ñaan sunu boroom subhaanahu wa taala mu boole nu ñun ñëpp jéggal suñuy bàkkaar te xiir ñu ci ak njub te saxal ñu ci bi jaahil abdil xadim wa isati sanadil maxdumi sallallahu alayhi wa sallam te defal ñu weer wii ñu nekk muy weeru koor li ci sunu boroom digle lim ci dige ci yërmaande ak njëggal ak gore ci sawara lu ci nekk ñu am ca sunu cër ñu dencal ñu ko ba bis ba nga xam ne mooy yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man atallaha bi xalbin salim ñu jox ñu ko foofu yàlla nañu ko yàlla defal ci barke Sëriñ Tuubaa di jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi kilifa barab bu tedd bi di Seex Saalihu Ture di ñaan suñ boroom mu guddal aw fanam te gën a yokk ak wéram ci barke sëriñ Touba di nuyu mboolem kilifa yi fi teew di ci jiital imaam sëñ Cheikh Ñing sëñ Cheikh sëñ euh, Saawaalo Gajaga sëñ Daam Kanaak sëñ Daam Touré ak mboolem ñi fi teew ñëpp rek euh, di fas yéene dugg ci tem bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane waaye waxtaan la woo xam ne ñun ñëpp koy bokk day mel ne maay wax sax waaye day mel ne day dem di si day mel ne li may wax ñi ma koy wax ñoo ko ñoo ma ko gën a xam wala ñoo ko xamandoo ndax nekkul lu lu ñuy jeex dafa nekk loo xam ne ñi ngi koy dund ñi ci dund jaar ci ba jàll dund nañ ko ba jàll gone yi ci toll ñi ngi koy dund ñi nekkul ci même système éducatif boobu tam xam nañ ko ndax euh, jàngewuñ ca waaye ñu ngi dund ak ñi ciy jàng moo tax ma ne waxtaan wi ñun ñëpp a ko bokk ndax maa ngi wax ci sama làmmiñ waaye bi may waxit it yéen a ngi wax ci seen xel ndax lu ma indi lu nekk rek yéen man ngeen a indi ñettam wala ñeentam wala fukkam kon tomb bi mi ngi nekkoon gàllankoor yi nekk ci système éducatif national bi ci suñu réew mi jafe-jafe yi ci nekk euh, ñu def ko nag ay tomb danañu wax ci njëlbeen gi ab jullit moom lu muy def lu nekk njëlbeen ga la koy ubbee mooy wax yàlla buy jëmmal ne système boobu moom war naa am tomb bi ci tege mooy ñu définir lan mooy système éducatif ci man ni ma ko déggee ñu definiir ko ba mu leer tomb ba ca teggee mooy euh, système éducatif boobu nu fi duggee ak kañ la fi dugg ak lu tax mu dugg fi ak ku ko fi dugal tomb ba ca tegee ñu waxtaanee. ñu waxtaanee contenu bi nekk ci biir système bi contenu bi maam li ñuy jàngale tam nekk ci biir danañ waxtaane itam système bi niñ ko tëggee ci ay téere bokku nag niñ ko doxale ci ci jëmm dañ ko wax ci ay téere mu leer nañ ci ay këyit ak i waaye la ñuy doxal di la neen mu mel ni lii daa nekk ci aw xur lii daa nekk ci waneen xur ba ca tegee dinañ wax ci làng wi ñu koy jànge ndax làng yomb la ci ñu jàngee ko wala déedéet ak effet yi muy def yiñ yàgg seetlu mu koy def ci ki jàng ki jànge ci système bi effet yi ñu ci yàgg a seetlu ak li ñuy wax ay débouché académique débouché académique mooy ngay jàng di progrès di am di am ay lijaasa euh, di di di jàll di jàll di jàll ak débouché professionnel mooy nga jàng ba noppi am am liggéey ci mujjee la point ba nag ñu comparer réew mi ni mu delloo gannaaw te système bi teg ko ko système boobu moo ko ko teg comparer ko yeneen réew yoo xam ne nii 1960 ñoo tolloo woon te léegi ñu rawee ñu lu bari daal di ciy àggalee nag. solution bi lan mooy solution bi dañuy jàpp ne solution bi du dara lu dul Serigne Touba te danañ ko leeral kon point bu njëkk bi dañuy wax ne yàlla suñ boroom dafa wax ci alquran ne yaa ayuhan naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa yéen nit ñi dama leen bind ci aadama ak awa ci aadama laa leen bind ak awa ndax boo nee maa leen bind ci seen ndey ak seen baay ndax yàlla am na ko bind mu am ndey te amul baay muy Seydina Isa alayhi salaatu wa mu leer ñu ci alxuraan waaye est-ce que amul ñeneen ñu bind ñu am ndey te amuñu baay te xamuñu ko waaye boo nee ñun ñëpp ci aadama lañ jóge moom doo jóom annaasu min jihati tamsili ak faa u abuhumu aadamun wal ummu hawaau fa in atayta bi faxrin min tawi hasabin yufaaxiruuna bihi fa tiin wal maa ñun ñëpp ci aadama ak awa lañ jóge sëñ Tuubaa mu ne bu fekkee nit daa ñëw di ndamu di la ndamu naa la man nii laa toll nee ko ah ñoo bokk maam kat ñoo bokk ndey kat muy awa ñoo bokk baay muy aadama ñun ñëpp fa lañ jóge yàlla bi mu waxee loolu ndax dañuy wax ne bala nga ne naam ne fa bala ñuy wax ay système éducatif nit ñi dañ fee nekk ba noppi aayo yi nag moo indi nit ñi mu ne wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila ma def leen ay giir ay peuple ay waaso ñi nekk ay africain am lu ñu xam am lu ñu man am lu ñu am ñee nekk ay chinois noonu ñee nekk ay indien noonu ñee nekk ay tubaab noonu ku nekk am nga loo xam am nga loo man am nga noo mel waaye li taarafu ngir ngeen xamante ndax xamante mooy sos jëflante ndax su fekkee Afrique daa am lum am am lum xam am lum man siin am lum xam am lum am am lum man te lañ xam ak lañ man ak lañ am bokkale ko kon faw ku nekk mu wuti ko ci moromam moo tax li taarafu fokk ñu dugalante waaye mu wax ne inna akramakum indallahi ataqaakum bu leen jàpp ne couleur yooyu ma leen defal da ngeen cee gënante ku ñuul ki gënul ku ku weex ki ku weex ki gënul ku ñuul ki ki gën ci man rek mooy ki gën a ragal yàlla sama nattukaay man li may nattee mooy ragal yàlla bu ma dikkee daal dinaa seet kan moo gën a ragal yàlla ma ne ah kon kii moo gën ci man ku gën a ragal toppaat ja ila axiri yi waaye de de su ko nattee ci ni ngeen mel wala fa ngeen dëkk inna allaha alimun xabir yàlla moo xam lépp ba noppi amul kumpa ci dara kon su fekkee aaya woowu juddu na rek dañuy xam ne kon un système éducatif mënta ñàkk a juddu ndax su fekkee man damaa am lu ma xam am lu ma am am lu ma mel am fu ma dëkk beru fa faw ma jàng te su may jàng dama ko war a adopté ak sama socio culturelu réew ma ma dëkk keneen def noonu keneen def noonu keneen def ku nekk sa système éducatif waroo koo bokkule ak sa moroom te kenn warute ñëw tëggal la ko ndax yaa ko war a tëggal sa bopp ndax da ko war a adapte ak la nga xam ak la nga la nga am ak la nga man ak la nga gëm su dul loolu rek ka la ko tëggal da lay nax léegi bu point boobu jàllee kon dañuy jéem a définir lan mooy système éducatif lan mooy système éducatif un système éducatif mënoo rek ne institution yi rek mooy système éducatif dafa war a am yu bëri yu daje mu doog a tudd système éducatif dama joxe misaal ci hôpital bi nekk Touba. bi nga xam ne moom lañ inauguré woon bañ màggalee ba noppi man man woon ne lii ab hôpital la ndax ab hôpital balaa nekk ab hôpital fokk tabax ba nekk fa fokk médecin ya nekk fa fokk sage-femme yi nekk fa fokk infirmier ya nekk fa fokk ay matériel nekk fa fokk personnel ba nekk fa dara du manqué mu doog a tudd hôpital waaye su fekkee ne da nga koo teg noonu rek amagoo hôpital système éducatif noonu la du institution yi rek mooy système éducatif système éducatif c'est l'ensemble des composantes de l'éducation lépp ngay boole mu doog a tudd système éducatif institution yi calañ écoles yi calañ écoles yi calañ école yu ndaw yi école yu mag yi ah école yu ndaw yi waaw ah, école yu ndaw yi ci lañ day dugg ci biir école yu mag yi day dugg ci biir ak yu duggi doomu yi day dugg ci biir ñay jàngale ca école ya day dugg ci biir téere ya ñuy jànge day dugg ci biir ña bind téere ya day dugg ca biir ak lañ bind ca biir téere ya téere yeeg lañ bind ca biir téere ya ak ña bind téere ya ak formation yi nga xam ne nii faw dañuy war ci anam gu gu gu gu ci anam gu continuer ñu koy defal ñi nga xam ne nii ñooy jàng jërëjëf ñu koy defal ñiy ñiy jàng ndax kuy jàngale dañu lay war di former di la former waat di la former waat mën ngaa am ñett ñaar ba ñetti formation ci at na ndax am na waykat bu ne damaa xamatul sëñ Moussa Kala wala sëñ Mbay Jaxate mu ne àddina day warangeku jamono di warangeku ku toog ci luy warangeku noo mën a def a àdduna day warangeku ñëpp xam nañ ko ñun jàng nañ ko al ardu taduru xawla nafsiha wa xawla shams mooy la terre tourne autour del même et autour du soleil ñëpp jàng nañ ko ca daara ja jamono day warangeku jamono mooy lii xew jamonoy njaajaan njaay ak jamono yi bokkuñu kon jamono day war a geku mu ne nag ku toog ci luy war a geku noo mën a def war a geku kon formation day war di continuer ànd ak jamono kon formation boobu buñ ko ci génnee la recherche ci lay bokk jàng ba pare di defee recherche ci lay bokk njàngum alxuraan mii ak njàngum diine mii nga xam ne nii junni at jiitoo na ko fi système bi daf cee war a dugg yooyu yépp da cee war a dugg ba noppi nag am li ñuy wax accès à l'éducation maanaam njàng mi jote fu ne jote fu ne ba pare am li ñuy tudde équité maanaam àgg fa te àgg fa ci àggin wu jaadu àgg fa ba noppi àgg fa àggin wu jaatu loolu da ciy dugg loolu lépp nag bu maasee am état encadré ko ba nga xam ne doomi ki mënul boppam loxoom jutul gannaawam doomam dana jàng donte loxoom jutul gannaawam encadre moobu da caa war a am su ma joxee États-Unis ci misaal nga xam ne man nekkoon naa fa foofa xale du fay jàng bon dañuy sakk wépp lay woo xam ne nii parent bi mën na koo laye ba doomam du jàng dañ koy sakk boo ne man kat ma awma oto bu ma ko yóbbee école ñu ne la kaar baa ngi gaar fii ci rue bi jàppal ci loxoom yóbbu ko heure sàngam lay la kaar bi ñëw bu dikkee nga dugal ko ci heure sàngam lay dëpp bu di euh, na la fekk foofu nga jël ko boo ne kaye big saak ak yooyu yëpp ñu la la sa yoon nekku ci loolu lépp yow ñoo la ñoo koy jox gone gi boo ne awmalum lekk ndax fa la ñuy yandu ca école ba ñu ne la ñoo koy jox luñ lu luñ lekk ndax am na ñoo xam dañuy am seen doom bu ñuy dem dañ koy defal li ñuy wax si bag dañuy jël ab ba euh, ab kii def ci ay lekk yóbbu ko ngir mu cay añ boo ko amul école ba moo ko koy jox même boo nee sama doom warut a lekk lii danañ leen a demal ci médecin mu justifier ne mburu koo lekk nga ñëw andil ñu kayit wi ñu jox ko li mu a lekk <coughs> boo buñ demee ba ba nga ne yow ci sa bopp amoo xaalis ba nga xam ne nii bu sa doom dikkee sax yow mënatoo koo dundal amoo loo lekk état bi da lay wax nga dem inscrire ci benn programme bu ñuy wax food stamps programme nga xam ne dañ lay jox ay monnaie local du doon xaalis yi ñu xam waaye ay ay monnaie lay doon ay euh, tin lu mel ne kii lay doon waaye du doon xaalis dëgg-dëgg waaye di ci mën a jënd lekk di nga mën a dem supermarché jënd ci lu la neex ci ay lekk ak i naan ngir rek mën a lekk ak naan xale yow da nga licitude da ngay drogué wala da ngay naan sàngara wala yooyu ñu ñëw nangu si doom ji am na fu ñu koy yóbbu ñoom ndax dañ naan doom ji yaa ko jur waaye moomoo ko état maanaam réew mee ko moom ndax la muy war a mën a jariñ réew mi euh, ñëpp réew mépp la koy jariñ du daw du yow dong la koy jariñ du boppam dong la koy jariñ la mu war a mën jariñ réew mépp la koy jariñ moo tax duñ la ko bàyyee nga koy yàq daal di koy foqar ci jël ko léegi nag loolu lépp su bokkee daje mooy machine bi nga xam ne nii mooy móol citoyen bi nit bi biñ soxla citoyen bi nga xam ne nii dañu koo dëppaleeg diineem dëppale koog aadaam dëppale koog cosaanam dëppale koog lam xam mooy machine bi nga xam ne bu ko moolee comme machine moolu brique ni muy nga xam ne boo moolee benn brique brique yépp ay nuroo boo jëlee woon nit Casamance jël nit Tamba jëlee nit Bakel jëlee nit Dakar ñëw boo leen tegee benn nit ki ngay am mu mën a jariñ boppam mën a jariñ ay waajuram mën a juriñ réewam mën a juriñ mën a jural askanam ba pare nga boole kook nag li taxoon mi ñëw ci suuf si euh, mu ànd mu ànd ci muy muy jaamu yàlla su fekkee ku gëm yàlla la moo tax benn système ku nekk sa système ni nga ko war a dëppalee bokkut ak na ki gëmul yàlla jërul muy dugal yàlla ci système am ba gëmul yàlla waaye nga gëm yàlla ba noppi nag yow ñu génn ci système bi yàlla bu boobaa système bi day am problème kon voilà un système éducatif performant lii bu dajee moom la ñuy wax un système éducatif tomb boobu ji bu jeexee euh, la ca tege mooy système bi euh, kañ la fi dugg ak ku ko fi dugal ak tam lu tax mu dugg fi loolu dañuy jël Euh, kenn koo xam ne nii 1880 bind na ab livre livre bi mi ngi ko tuddee le Sénégal sa colonisation par l'enseignement populaire noonu la ko tuddee mi ngi tudd Jules Turgan di ab français 1880 la bind téere boobu maanaam titre bi mu tiitaree livre bi rek ça tout dire le Sénégal sa colonisation par l'enseignement populaire kon nga xam ne enseignement bi daa ñëw ngir not réew mi waaye ñëwul pour jàngal leen bi mu bindee loolu 1880 1882 ñu teg ci ñaari at ku ñuy wax Silferi nekkoon ministre de l'instruction euh, euh, publique xam naa moo tolloog ministre de l'éducation nationale fii daa di génnee ab loi ci 1882 daal di ciy génne nag juróomi tomb yoo xam ne ñent yi yu am solo la benn bi ñëw yàqaat lépp wala boobu moom yàqalu leen ko sax ndax loolu lañ gëm waaye ndegam ñun lañ ko jox kon yàqal nañ su fekkee jël nañ ko daf ne école bi dañ ko war a changer ndax école bi booba diina de cay dugg chrétiens yi ak catholiques yi dañ daan kii dañoo am influence ci école bi léegi nag mu def loi boo xam ne nii école bi nee na juróom yi mënu cee ñàkk nee na école bi dafa war a gratuit mooy kenn du jàng di fay loolu muy lu baax a baax ba ca tege mooy école bi dafa war a général maanaam dafa war a global maanaam ñëpp war a jàng dafa war a yaatu ba ca tegee mu ne dafa nekk war a nekk obligatoire maanaam kenn sañi te téye doomam ne du jàng loolu di lu baax ba ca tegee mu ne. li ko tàmbalee juróomi at ba fukki at ak ñett 6 à 13 ans lu gàtt-gàtt xale bi war na ko jàng xam loolu it du lu baax xam na lu muy wax ndax juróom-benni at yooyu loo mënta def ci gone gi amul ndax juróom-benni at yu njëkk yi moom moog ndeyam ay nekk loo def ci moom mën naa dañ lu nekkul ci moom it mën nañ ko caa def bu ndey ja góor-góorloo amal ko éducation de base bu baax yow boo jotee ci yow yow ci moom yow miy jàngale da ngay noppalu ndax da ngay fekk ndey ji yoroon yaroon na ko ndax ab yaram ba nga tàmbalee ca biir ba xale bi day dégg ci biiru ndeyam di dégg li ñuy wax du xam sax li ñuy wax waaye dina xam dina dégg baat yi nga xam ne baat yi bu ko yàggee dégg bu juddoo bu ñu ko waxaatee dana xam ne lii kat daana ko dégg boo tax wax gisee mag ñi bu njëkk ñu naan diw dafa dugub néeg dañ daan bañ xale bi ngay génn bu ko defee muy dégg lu bari di capter yu bon ak ak yi waaye dañ bëgg nga nga nekk ci lu baax nekk ci loo xam ne ni bu juddoo rek dana yomba yar ndax xale ci biirum ndeyam lay tàmbali nga koy yar waaye juróomi at yooyu amul juróom benn at yooyu amul solo loo ci mën a def mën naa dañaat waaye juróom benn ati ñaareel yooyu ci lay dañ moo tax si mu wax lool mu ne 6 à 13 ans xale bi nag boo ko jotee 13 ans day nekk entre euh, bu dee 6 ans matt gi day tooy danga koy mën a jubbanti ci nu mu la neexee waaye bu dee 13 ans jëm 18 ans matt gi day nekk entre diggante tooy ak dëgër boo amul patience mu damm bu xësee weesu 18 ans nag moom yar amatul yàllaa ci des inna allaha yahdi man yashaa yàlla mën na ko jubal waaye moom ab yarati ko foofu dina jafe moo tax Jules Ferry li mu wax foofu it lu am solo la waaye point bi mu mujjee moo baaxul ndax nee na njàng mi bu nañ ci génne yàlla ba mu set wécc nag waaw nañ ci génne yàlla ba mu set wecci bu ci yàlla am yoon mooy l'école doit être laïque te moom moomu moo firi laïcité moom moo ko firi moom mi wax loolu moo ko firi moom moo moo ne la laïcité mooy organiser le monde sans Dieu moom moo ko moom moo ko firi yàlla bu nekkee rabbu samaawaati na ko nekk waaye rabbul ardi moom bu mu ko fi nekkee loolu nag lañ dugal ci système bi ba pare nag ñëw yëbal ñu Euh, Silvéry bi mu defee loolu bi ñu te tegee ñaari at keneen ku ñuy wax René goble moom it daal di ñëwaat defaat beneen loi daal di ne Silvéry lii mu wax ne école bi dafa war a laïque non seulement daa war a bañ a yam ci laïque rek waaye nit ñi am diine sax waruñu fee jàngale maanaam boo fay jàngale doo am sañ-sañu xam nga diine moom ci xol lay nekk waaye li la li liy firndeel loolu doo ko sol doo fa sol yére labbeeg ak yooyu bi di influencer xale yi nga xam ne bu doon fii ci tuubaa dañ naa la doo sol xaftaan loolu René Goble moo moo ko ci dolli kee moom dane nañ ci génne yàlla rek kee ñëw ne waaye nit yàlla yi sax buñ ci jàngaleeti mbokk yi école boobu nag moom lañuy ñu moo nekk fii moom la ñu andil biñ ñu ko indilee itam dafay fekk ab système nag boo xam ne nii jiitoo na ko fii junni at yu manqué tuuti ndax lislaam bi muy dugg bi muy dugg Afrique duggagul madinatul munawwara bi muy dugg Afrique duggagul euh, Makka la nekkoon waaye duggagul Madina nga xam ne Afrique la lislaam njëkk a dugg ci Madina ak li Madina jege jege Makka ndax najaas yi boobu nekkoon Éthiopie bañ demee làqutu foofu foofu lislaam dafa dugg te boobu àggagul Madina kon ñun junni at jot nañ ko suñu système muy système bu efficace nag. boo xam ne ni xale yi dañu leen di gëmloo ne tubaab yi ñoo leen fi andil xam fekk fii ci Pire eh, université moo fi nekkoon fee ca Tombouctou université moo fa nekkoon mbooleem xam-xam yi ñu xam dañ ko fa daan jàng ay science physique science naturelle euh, astronomie astrologie physique chimie yépp lañ daan jàng Maroc ak yi dañ daan ñëw di jàng si Tombouctou tubaab yi dañu fa daan ñëw di gàggante bañ fa duggee rek ci colonisation bi lañ jël téere yi lakk yi ñu suul ko nëbbu xam-xam yi ay yubarti mujj na sax ginnaaw bi feeñ ndax lu fi nekk loom nit ñi dañ koy mokkal di ko di ko xam di ko waxtaane di ko bind mënuñu ko suul système boobu nag mënoo fekk ay nit ñu yor système ab système junni at nga dikk indi leen système ne nañ ci génne liñ gëmoon junni at yëpp muy yàlla ji loolu moo xew mooy mooy mooy système damay dégager rek ay piste de réflexion waaye li may wax yéen ma ko gën a xam lu lu lu kii la luñ dund la rek ñun ñëpp a ko xamandoo moo tax ma ne waxtaan wi ñun ñëpp a ko bokk man li may wax sax lu ma wax rek yéen mën ngeen ma ci dollil ay points yu gën a efficace yi may wax ndax su ma ko ci de su ma de jàll rek benn point rek mën naa cee toog bañ dog waaye su ma ubbee rek yéen xam ngeen fi ma jëm te di ngeen ko ci mën a dollil seen bopp. Euh, système boobu nag xam nga wax naa la 1880 le Sulturgan bind loolu Sulturgan itam li firndeel ne téeréem bi pour yàq rekk la dama cee joxati ñaari point yoom ci wax ak ay njombe kese la nag waaye ñaar yooyu daa concerné waxtaan wi moo tax ma jël ko dafa wax ne dañu war a fonder à Saint-Louis booba Saint-Louis mooy capitale une école exclusivement pour les nègres y attirer les fils de chefs, influents par des cadeaux et des fêtes mu ne dañoo war a def ab école boo xam ne ni ngir nit ñu ñuul ñi la jël doomi buur yi dugal leen ci di leen influencer ci ay cadeaux ak i fêtes ngir lan ngir ñépp ñee leen ba ba dugg fi xale lu moroomam def rek da koy ñëw bu ñu ràññee fii sol yu bokk sol ay pantalon daal di koy baraaye karawaatu ñu leen di jox ay cadeaux xale yépp dañu bëgg a dem ci école ba te néewuñu sax ab tubaab moo koy def waaye dañu ne yi attirer les fils de chef dañ jël doomi buur yi def leen to nga xam ne dañ ne mel ne kon dañuy jël ci yéen ñenn yàq leen def leen uti ñu yàq ñeneen beneen bi mu ne miine sourdement la puissance des marabouts sourdement mooy bu kenn yëg miine miine mooy dañoo abbu baat bi mooy nga miine mooy nga exploser dara wàññi dooley sëriñ si ci wàññiin ngoo xam ne nii kenn du ko yëg ñëwal sukk ñëwal raam ñëwal jëbbulu ñëwal jooy sax su la neexee waaye na li fekk lépp loolu li ko li ko bëgg mooy nañ màbbu sëñ bi ñaar yi rek daal ne sans sans la combattre euh, ouvertement sans la combattre ouvertement bu leen leen xeex cig fés waaye nañ leen miine nañ miine seen puissance sourdement ñaar yii rek ay njombe kese la waaye ñaar yi daa concerné thème bi moo tax ma jël ko ci livre bi te livre bi comme neex mën nga koo seet ci internet bi mu ngi tudd le Sénégal sa colonisation par l' enseignement populaire ku ko ci xool dinga nga ko boo ko jàngee di nga di nga ko gis. léegi nag mbokk yi ñoom bi ñu andee seen système bi dafay fekk wax naa la Jules Turgan 1880 la la bind lii Jules yi ñëw def loi bi 1882 1880. six René Goblet ñëw daal di ci dolli ne nit yàlla yi sax bu ñu duggati ci école bi di jàngale waaye 1880 bi bi bi kii defee lii bi euh, Sulféry 1882 bi mu defee loi bi ba ba pare te fekkoon na fa ñoom seenum njàng seenum njàng moo xam ne ni maneen la waaye dañ ko soppi daal di ciy génne yàlla ndax yàllaa nga ca woon waaye sëñ Touba fii ci Mbàkke Kajoor nga xam ne benn at da ko da koo def rek benn at sañ Touba yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi dars yow it soppil programme yow it soppil sa programme léegi bul yarati nit ñi ci jàng rek waaye dee leen yar ci itte li ñuy jàng nañ koy jëfe di ko dund waaw léegi-léegi damay wax naan day mel ni sëñ bi da leen toppe mbooro xaw ma waa mbooro yi nañ ma jéggal ndax damay seetlu lu bari suñ defee dara rek sëñ bi dana def dara waaw loo xam ne nii da day tax seenu pexe na sax nga gis ñeenti point euh, juróomi point yooyu yépp ñu indi sëñ Tuubaa da ko indi xam nga dane nañ jàngal xale yi gratuitement et généralement sëñ Tuubaa tam loolu la wax sëñ Tuubaa dane fa saari'u turran ila taallumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi loolu mooy yéen ñëpp dem leen jàng exception amu ci ne ñëpp dem jàng góor ak jigéen mag ak ndaw ñe ñëpp dem jàng nga xam ne loolu dugal na gratuite dugal na général ndax euh, dugal na obligatoire dugal na général parce que ndigal mooy obligatoire wa ma aataakum rasulu fa xusuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lu leen yàlla tere bàyyi leen ko lu mu leen digal def leen ko murit moom ndigal rek jullit itam ndigal kon ñooy ñaar yooyu ñoo moo ko bokk léegi sulféri yi li sulférinee bu kenn fay na nekk gratuite sëñ Tuubaa tam loolu la wax taallamuuna ilma li wajhillaahi duuna al munafasati wa tabaahi dee leen jàngale ngir yàlla kon ñiy ja dee leen jàng ngir yàlla ñi ñuy xam nga gratuit sax du du du fay sax du cosaan ci ci ci ci noonu njàngum di fayu léegi la waaye bu njëkk kenn du fayu kenn dañ daan jàngi boo li ngay lekk da ngay dem yalwaani ko ñu sarax la ko wala ñu indi ko ci daara ji waaye boobaa eh, maanaam bu njëkk kenn daawul fayu dara te sëñ Tuubaa jëmmal na ko ci wax ndax taallamoo la ilma li wajhillaahi mooy jàng leen ngir yàlla kon ñiy jàng ak ñiy jàngale ñëpp dañuy war a jàng ngir yàlla bi mu ne itam ni ñëpp jàngi 6 ans à treis ans sëñ Tuubaa moom it dafa ñëw point boobu da ko da ko ci dugal yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda yaa ayuha sibyaanu la wax te moom moo ko gën a yaatule ndax na foo xam ne dañ yaa ayuha shubbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala al amal nga xam ne bu dee xale yi moom dañ leen koo forcé mag ñi nag sëñ bi forcé woon waaye danaa leen bu ngeen bañee gàcce jiital leen xam-xam ci jëf waaye xale yi moom dañ leen koo forcé laa tastaxilu bu leen soxla anil huda wa bil ulum lu dul xam-xam ak njub bu leen ko soxla kon ba nga xam ne nag moo sëñ bi dañ koo opposé diamétralement mooy bi ne ñoom nañ ci génne yàlla sëñ Tuubaa moom dane nañ ci jiital yàlla dañ ci jiital yàlla fa qaddimu l aqaida sunniya mujaradatin an firan wa mirya na ngeen ci jiital yàlla awalu waajibin ala al muridi taxsilu saadihi min a tawxid ab murid li mu war a njëkk def yóbbalam mooy tawxid mooy yàlla jooju moom lu ñu ne nañ ko ci génne moom la wax ne nañ ko ci jiital Euh, moo tax boo demee ci tasawdu si xaar gis nga sëñ Tuuba yàlla ji euh, ni muy jiitale tawxid imaanukum ya ayuha sigaaru bi man lahu sigaaru wal kibaaru an tuuminu bi billahi wal malaika wa kul bi haadin saalikin wa saalika wa yowmi l axiri wa rusuli l kiram wal qadari alladi yajuudu bil maram xam ne tawxid la jiital teer bi yëpp tawxid la ak euh, iman islam ihsan la muy tawxid fiq tasawuf kon mu mel ne lii dama ciy jaar jàll nii rek xaj naa ci ñëw ca kanam waaye moom def nañ seenub luwaa ci mille huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-trois Sëñ Tuubaa feelu leen moom it sensé système bi moom itam léegi tomb boobu daa mel ne man nañ ko épuisé ñëw ci système bi nag bi mu ñëwee ba noppi ba ñu andil ñu ko waaw ñun lu tax ñu andil ñu ko ñun jëlewuñ ñu ko nit ñu ko joxe ndax dañ nañ ne ñëpp jàng gratuite ndax ñëpp ñu ngi jàng gratuite yaakaar naa fii ku nekk mën naa tontu loolu kenn jàngul gratuite ku amul xaalis sa doom mën naa bañ jàng ndax ñu ngi jàng ndax général na ndax daj na dajut ndax xale yi nga xam ne ñi ngi am 6 ans à 13 ans ñi ngi jàng déedéet ñi ngi dawal Jakarta ñi ngi dawal saret boo demee Touba gi moom fa la gën a ëppe biñ ci respecté daal daa mel ne mooy bi nga xam ne nii jiitoo na fi junni at nga xam ne moom waru waruñu ko woon a laal sax muy génne ci yàlla ndax amul benn école boo xam ne dangay dem fekk fa ñu fay jàngale alquran wala ñu fay jàngale diine wala bi ñu ko ci dugalee itam dañ ko cof cofiin woo xam ne yow miy jàngale sax da nga xam ne li ngay jàngale dañ ko ciy dugal rek ngir wax nañu ngi jàngale diine waaye daanaka loolu du leen ci ñore leen ci ñor kon loolu mooy système bi loolu nag dañuy xool liñ bind ci téere yi ci luwaa yi dafay mel ne kan moo war a jàng ak ku warut jàng loolu da nga da ngay jaaxle yow boo dëkkee dakaar wala nga dëkk Thiès wala nga dëkk Ndar wala les grandes villes am njàng day yomb sa doom ndax école yaa nga fa euh, professeur yaa nga fa euh, école euh, lañ ñay décide yaa nga ca wetu ñay décider itam lañ ñuy bëgg ci seen école yéen ngi koy mën a am waaye am na foo xam ne boo fa dikkee ci réew mi mën ngaa bañ a jàng de dam jàng da lay jafe lool boo dëkkee ci àll ba di baykat wala ngay nappkat wala ngay sàmmkat dëgg fu soree yi am njàng mën na laa jafe bu ñuy wax nag danañ wax ne na nga jàng waaye boo jàngul itam du am yenn préoccupation yi ñuy teg ngir nga jàng te jàng dafa war a am accès et équité accès mooy ñëpp jot ci ki dëkk Dakar Plateau wala mu dëkk Fann Ok wala mu dëkk Point E ni mu war a jànge kii dëkk Yolma wala Curóngeen wala Taalbaxle wala ja noonee la war a jànge njàng mi wërta am euh, euh, euh, maanaam ku war a jàng ku wërta jàng ñëpp war a jàng ni ko sëñ Tuubaa waxee fasaari'u turran ila ta'allum te ñoom ñoom loolu lañ bind ci luwaay te loolu li muy créer lu garaaw la parce que da day danaa day créer ñaari nit ñu bokkul ñaa nit ñoo xam ne nii dañuy jàpp ne ñoom ñoo war a jàng seen doom jàpp ne seen doom yi war a jàng bu ko defee ñu yilif ñi jàngut seeni doom bu njikkee yilif doom yi ñi jàngut seen sët yilif sët yi ñi jàngut mu mu xaaju ci digg bi am ñuy jàng am ñu dul jàng ndax ñi jàng seen i parents moom xamuñum njàng mënuñoo dimbale seen i euh, euh, seen i doom ngir ñu jàng ñëlee nag moom mën nañoo jàng mën nañoo dimbale seeni i doom ñu jàng bu ko defee toujours dafay am déséquilibre ci population bi am ñu jàng ak ñu jàngul te loolu warta am dafa war a am indimaaj ñëpp jàng ñëpp dañoo war a jàng njàng bi dafa am njàng dafa war a daj te itam day mujj dem ba nga xam ne nii dañuy jàpp ne loolu dafa normal xam nga lu yàgg am di am di amaat dañuy mujj jàpp ne dafa normal te fekk normalul day mujj booy wax sax jóge ci àll ba sama classe gi euh, booy wax nañ naa la yow lu sa yoon ci njàng yow ab kaw kaw nga ab baykat nga eh, demoo bay nekkoo ci àll ba xanaa di wax ci mu jàng mel na yow war amoo sax eh, war a jàng ci ay téere ci yooyu dañuy jàpp ne moo mënta fekk yàgg gee yàgg gee tax yàgg gi mu yàgg am ñu di ko seetlu oh, réew mi dañoo am tendance ci jël alali réew mi ak yëfi réew mi di ko concentré ci yenn yenn gox bàyyi yeneen loolu loolu dafay yàgg waree su te jàpp ne am nañ 4 milliards budget Euh, benn mil ñaari milliards yi daa war a dem dakaar benn milliard ba dem Thiès 500 euh, millions yi dem Rufisque benn 500 millions bi dem faneen euh, ñu ne jeex na waree su la def def noonu nu mu toll dañ ko war a seet ku nekk la nga ca war a am ak ruq ba nga nekk lu mu ruqee ruqee ñu jox la ca la nga war a am ngir nit ñu du ñu jànge ci ay abri provisoire am na ci ñu bari ñoo xam ne nii bu ñuy jàng buy xiin rek ñuy tiit ndax classe bi mooy daanu bu ngelawee duñ jàngi bu tawee ñu ñu toog. loolu am njàng mënu fa am ñaari itam li muy defaat ci ci problème mooy day tax nit du égaliser nit ñi nit ñi day am ñoo xam ne dañu am li ñuy wax euh, euh, maanaam dafa am li ñuy wax complexe d'infériorité mooy nga nga nga naaw sa bopp am complexe bu ñuy wax euh, complexe infériorité mooy bu bu ak duuniya nga xam ne da ngay xeeb sa bopp complexe de supériorité mooy da ngay naw sa bopp ñaar yooyu benn baaxu ci ñi jàng de loolu da leen di faral dal ñi nga xam dañoo jàpp ne ñoo jàng dañuy jàpp ne ñoo gën ñi jàngut ñi jàngut itam jàpp ne jàng dañ leen a gën loolu nag bu système bi demee nii loolu dañ day créé wu par force ma ne su ko bañ a kii li ñu waroon a def mooy mu jaxasoo ñëpp jàng waree su te jàpp ne kii baayam amul alal warut jàng kee baayam am alal moo war a jàng ki baayam am alal daa war a jàng ki baayam amul alal daa war a jàng doomi buur bi daa war a jàng doomi baadoola bi dafa war a jàng doomi euh, sëriñ bi dafa war a jàng doomi taalibe bi dafa war a jàng am njàng amul kii moo war a jàng ak kee moo jàng sëñ Tuubaa fasaari'u turran la wax ila taallumi wa jaahidu nufuusa bi tafahumi yaa ayyuha sibba sibyaanu mooy xale yépp laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi bu leen soxla lu dul njub ak xam-xam yéen ñoom kon orienté na ñëpp ci am njàng te loolu moom lañ gis ci système bi euh, dëkk yu bari àll yu bari yoo xam ne nii boo fa demee da nga gis duñ mën a jàng problème bi mooy dafa amul accès amul équité accès à l'éducation et dafa war a am jàng mi àgg fépp fu mu war a àgg te àgg fa nam jaadoo beneen bi ci tegee ñu ñëw ci point bi nga xam ne mooy contenu bi ñuy jàng contenu bi itam dafa am problème Euh, am na yu baax nag waaye man comme problème yi laa war a wax yu baax it ñëpp xam nañ ne baax na waaye man problème yi laay wax te problème bi ñu ci gën a marqué mooy bi ñu ci génnee yàlla ji moo tax te ñun suñ système bi ñu fi yàgg am junniy at euh, te junniy at yi itam li waree ne lislaam am na fi junni at mooy jaabi waar njaay nekk na ci histoire ci téere histoire yi jaabi waar njaay euh, di cinquante la nga xam ne kon daanakay junni at yi mat na te mooy buur bi ñu wax ne moo njëkk a dugg ci lislaam loolu mooy wax ne lislaam yàgg na ci ci Sénégal continent bi buñ ci ñëwee dafa am ay continent universel yoo xam ne ñëpp ko bokk daanaka ku dégg ñu ne te doom ña ngi koy jàngal science ay physique chimie mathématique yooyu doo ci am benn problème waaye boo déggee boo àggee ci nag ñu war a jàngal sa doom histoire yi réew wala ay jàmbaar yu nekk faneen wala xalaatkat bu nekk barab sàngam loolu am réew dafa war a tey ca ca la muy jàngal doomi réewam am na ci ñu bari ñoo xam ne nii élèves yii euh, boo leen laajoon maanaam ñenn ñi lañ gën a xam ci sunu réew ay Darwin nag ay Descartes ak ay ay ay De Gaulle ñooñu lañ gën a xam ci sunu réew ay Molière ak ay Corneille ay Boileau ay De yooyu lañ gën a xam ci ay sëñ Moussa Ka sëñ Mbay Jaxate sëñ Mbay Sàmba Jaara Mbay fi mu toll ñu baree ngi fii boo leen laajoon les quatre xalif succédé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy Ababacar Omar Ousmane Aliou mën nañ la ko bañ wax nañ la ko war a waxee boo leen laajee soxna yonente bi mën nañ la ko bañ a wax nañ la ko war a waxee boo leen laajee doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ la ko bara baña wax nañ la ko war a waxee xaj na dinañ xaj na ñu am ñu ci xam ñu ñu fa waaye boo demee ca école ya dañ koy jàng. yii ma la wax ay Corneille ak ay Boileau ay Molière dañuy dañuy ciy fent sax dañ ciy def sax ay ay jeu de mots am na boo xam ne dañ naan je suis la racine Molière Boileau de La Fontaine xam nga loolu day jamtal ñaari maanaa day mel ne danga ne damaa toog ci kaw car bi Molière mi ngi naan ndoxu Fontaine bi ndax Boileau aw tur la waaye day tekki naan ndox de La Fontaine day tekki ab fontaine te fekk ñi ngi ci jubluwaale itam maa ngi toog ci kaw car bi man ak Molière ak Boileau ak De La xam naa bala mi jàng tubaab gars yi jàng tubaab moom <laughs> dinañ xam loolu yooyu yëpp dañ koy xam ngir conserver seen i figure ci seen bopp seen subconscience dañ ci seen i figure ba saa yu ñu ko bëggee génne génne ko waaye koo ci wax ne ko Birima jël la euh, euh, ñu koy wax Kocc Barma kenn du la wax kan mooy Birima jël lu ñu xam sax non vrai nom ba Kocc Barma la ñuy xam te duñ xam ne Ndiogé la sëñ Moussa Ka dañ koy xam noonu duñ xam ne kànk la dëkk sëñ euh, Mbay Jaxate dañ xam waaye duñ xam ne Mbakol la jóge Xuru la nekkoon yooyu yëpp duñ la ca man a wax dara yooyu ay contenu bi dafa am problème foofu dañoo gën a fësal la la pensée européenne que la pensée national dañ ko ci gën a gën a fësal li ñu waroon a def nag ëppal ci la panse national que la pensée européenne maanaam dañ ci ëppal xalaati tubaab bi ci suñuy xalaati suñuy ifi bopp xale yi noonu la ñuy xamee yeneeni réew fi ñu toll élèves yu bari boo leen laajee ay ay ay tundura ak tayga ñu ñu ñu wax la ko te boo leen aloom ay xaasew aw neew ay ay sool xamuñu ci dara te yooyu ma nga nekk ba Russie ñu leen koy jàngal ci école yi ñu jël ci temps bu baree baree bari nag guerre yi tam ñu xam yépp xam la guerre de de sécession première guerre mondiale deuxième guerre mondiale Euh, bomb bañ sànni woon ci Hiroshima ak Nagasaki xam yëpp di di di ko jàng di ko mokkal di ci di di di ko mo di ko tari di ci bind ay papier di ci caxante di ci def lépp waaye boo leen ne woon xareb saa Paate ba Badiane ñu ne la li ngay wax lu mu doon xanaa da ngay lépp boo leen woon xareb Samba Sadio duñ ci xam dara boo ne la woon xareb Somb duñ ko xam te xare ya nga xam ne nii xare nañ ko nag ci xare tubaab yi ñoo mën a xam lépp kon loolu day delluwaat ci rek lépp dafa lié day wane ne kon dañu bëgg a xaw nelawal xañ leen seen bopp ñu xam ñeneen ndax loolu mooy indi euh, ñu ñu ñu ñu ñu ñu am complexe ñu complexe ba nga xam ne dañuy dañuy assimiler dañuy jàpp ne la keneen am moo gën liñ am loolu tam euh, dañ ko cee yàgg seet Euh, bu ñu jógee ci beneen point itam mooy langue bi langue bi itam am nay jafe-jafe jafe-jafe yi mooy langue boo xam ne nii doo ko wax ak sa ndey doo ko wax ak sa baay doo ko wax ak say bokk doo ko wax ak say xarit boo demee ca école ba professeur ba mooy taxaw ca tablo ba wax di ko wax te bu génnee duutu leen ko wax làkk boobu pour nga mën koo maîtriser ba man cee jàng ay concepts très élevés ak ay sciences yu rigoureux loolu yéen ñii xam ngeen ne lu yoo yombul moo tax damay wax ne sénégalais yi ay jàmbaar dëgg lañ ndax da gis ñu am ay ndot yu baax bu ñu demee États-Unis wala France wala fii di dugg ci école yi gën a fort te làng bi ñu koy jànge moom du seen langue bi ñuy nàmp ma ne ñii kon ku leen jàngaloon làkk bi ñu nàmp ñu toj ñu ñu ñu ñu soppi àdduna Ah? ab làkk danga nga ko war a dafa war a dafa am lu ñuy wax apprendre à liir liir lire pour apprendre xam nga booy jàng dara ab langue ngir mën koo lire ba pare wëlbatiku wëkk caa jàngi ay xam-xam da lay jëlal temps bokkut ak bi nga xam ne nii da nga koo danga nga koo nàmp tey langue bi nga nàmp boo ko doon jàng ñetti weer ngir mokkal ko làkk bi nga nàmpul da ko jàng juróom ñeenti weer boobu tuut te sax du tax nga mokkale ko noonu. téere sëñ Souhaïbou boobu ku leen ko joxoon léegi boo feree iji rek dangay ngay daal di tàmbali liir loolu mooy liir pour apprendre bokk na na nag ah, di di di di eh, jàng ngir mën a liir apprendre à liir bokk nag liir pour apprendre loolu dafa am kii man ja daara jee may jàngale damay jël tasawudu sixaar masalan jël muqaddima bi tekki ko ci wolof jox ko xale yi waaye dañ koy naan comme ndox damay damay yéen ñëpp jàng ngeen tasawudu sixaar damay dikk ne leen xam nga mi ngi tàmbalee yaayoo si biyaanu laa tasaxloo ba ci xaakum nasihat yi niñ koy faral di jàngale mooy yaayo si xaaru yan ndaw ñi yaaya laata tasaxloo bu leen soxla da nga xam da koy wax wax euh, baat bi tekki ko ci arab jéem a jàpp nag maanaam yëpp man nag damay dikk ne yéen ndaw ñi bu leen soxla lu dul xam-xam ak njub xam nga loolu daa gàtt xam-xam ak njub ku ko soxla dangay nangoo jàng tey mokkal li ngay jàng tey mooy jotaayu bon yi tey ànd ak ku baax tey roy ci moom boo nekkee xale nangoo jàng boo màggee noppal boo nekkee xale jàngoo juboo ba màgg te nangoo tuub réccu góorgóorlu yàlla dina la baaxal nga texe ndénkaane baa ngi nii fab leen ko te jëfe bu leen ko jëfee texe àdduna ak àllaaxira xam nga loolu dafa dafa efficace parce que li tax mu efficace mooy wolof bi ñu ko génne la wolof wolof bi ñu ko génnee la waaw waaw Cheikh Anta Diop ku bari xam-xam la dafay wax ne un point sa se déplace engendre une ligne nee na boo ko bëggee jàngal gone ak olof gi tox na nga six ans six ans mu lay jàng doog a a nga ne ko un point qui se déplace engendre une ligne mu daan koy xam ca saasa ndax la ca aju ci ay baat du ko xam du xam un point du xam luy point du xam déplacé sax wal wal waxuma la déplacé tax waaye se déplacé nga xam ne beneen maanaa lay amaat du xam engendré du xam une wala un e la ñu war a wax ligne yooyu yëpp nag pour nga wax ko ko mu xam ko soxla lu juróom-benn yàlla waaye boo ko ne woon tomb buy watatu moo diw rëdd da koy xam ca saas tomb buy watatu moo diw rëdd wala nga ne ko boo bëggee rëdd da ngay tomb xëcc xale boo ko wax mu xam li nga wax moo tax jàng làkk da lay ralentir euh, ba li nga xam ne nii da lay da lay xaw a tardé lu baree baree bari te langue itam day dem ba nga xam ne day ànd ak culture euh, day ànd ak culture dañuy jaxasoo ndax ale ci am yow arabisan buy wax xurratu aynin euh, bokkut ak comme su ma lee woon sëñ ale di li nga def sedd na sama xol ci tubaab dama naan ce que tu ma fait me fait chaud au cœur laa wax te ñun tàng mooy tàng te ñun sedd lañ ñu jàngal il faut nga wax ne lii dafa tàng sama xol pour mu doog a sedd tekki lii dafa sedd sama xol ci noonu kon langue day day day jaxasoo ak mbatit day jaxasoo ak mbatit day jaxasoo ak ak ak kii moo tax euh, sa sa histoire ak sa culture toujours day day day lëkkalikook sa langue ndax tey jii su ma ne woon diw woŋ na woŋ na ko woŋ rek bu ma ko waxoon da ngay xam ne ci bopp la dal te da ngay xam ne daal lonkal baaraamam doo bu dalee faneen fu dul bopp du tudd woŋ waaw léegi nag ku nekk kon am nga saw làng boo xam ne nii boo ca tëggee jàngee ca rek daal di xam ma joxe exemple ci léeg-léeg lii xew te ñun duñ ko jël ci sunu làng lu mel ne airbag comme américains yi ñoo defar oto dafa am lu ñuy wax airbag mooy mbuusum ngelaw mi nekk ci kanam nga xam ne bu oto bi sokee day ubbeeku ci kanam ubbeeku ci ñaari côté yi ngir mu naj la ba choc bi du mu amortir choc bi dañuy wax airbag bi ñu ko génnee ñoom airbag lañ ko tuddee ndax ñoo ko fent français yi fonk seen langue daal di ñëw daal ni coussin d'air ñun nag benn ñu ne airbag wala coussin d'air te am nañ ko mooy mbuusum ngelaw waaw ah, lu tax waxuñu ko waaye dañ naan euh, airbag bi moo génn wala coussin d'air bi moo génn mënoon nañ ne mbuusum ngelaw mi moo génn parce que dañoo fonkul suñu langue rek langue da war a am bureau académie nga xam ne baat bu génn rek siiw nga jël ko wutal ko tur boole ko ci ñu koy wax forcé journaliste yeeg yëpp ñu ñu koy ñu koy wax léegi ñëpp di wax wolof waaw dégg nga lu mel ni email email i bi i ak mail électronique mail anglais la électronique mail français yi ñoom ñoom comme ñoom fànte ñoom français bi ñu ñëwee daan ne courriel courrier ñun lu ñuy wax mooy email rek wala courriel euh, wala courriel courrier L muy courriel nga xam ne ñu ngi ci jublu courrier électronique email itam mooy électronique mail i bi dañ ko gàttal rek ndax français e i la koy wax euh, kii nag daal ne moom da ko def benn baat te ñun am nañ baat boo xam ne nii el ba da caa dëkk te ñoom i bii ci nekk di électronique dëkku ca dañ ko caa dugal ñun bataaxel L ba ca la dëkk ñun bu ñu ko doon jël duñu sonn dañuy soppi bataaxel rek muy email ñu daal di koy conventionnellement ñëpp di ko wax mu jeex ñu xam ne bataaxel mooy email waaye defuñu ko loolu tam xaj na nit ñaa ngi ci jéem di kii waaye ñi ñu jox seen système bi ñoo nekkaat ci gannaaw système bi di gën a buux ba duñ li may wax yépp euh, am na ñu koy xalaat waaye léeg-léeg ñu jëmale ko kanam day xaw a jafe moo tax ku mel ne sëñ Jili Kawe ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy bind ay ay téere ci wolof bind na tey grammaire bu am solo ci wolof ñu ngi ko ciy ndokkeel bu baax ak ñi nga xam ne xaw ma seen tur sax waaye dégg naa ñu ngi góorgóorlu ci làkk bi la ci tege mooy <clears throat> beneen point mooy effet yi nga xam ne moom lañ faral di di di di di gis ci njàng ci ñi jàng tubaab xam nga njàngu tubaab mi daa am ñoo xam ne nag daa am ñoo xam ne nag am njàngum tubaab da di gën a defi taalu bi classe saa waalo nga jege gii xam nga ni kii nii mu mel ni école Jules bi defu système sëñ tubaab bi moo ko def nii yéen ñii ñëpp système sëñ tubaab bi moo leen def nii du école juste bu doon école bi rek ñëpp sànq sëñ Touba nee na dogan ko nag dem gi wolof nasaraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraan wolof nasaraanu mooy ñun ñëpp dañuy dugg ci système moo tax seen sëñ système u sëñ Touba bi dafa am doole façon am doole goo xam ne nii seen classe gi yépp dañuy ñëw buñ toogee man ak ñoom. man ca daara jalaa yaroo ñoom école ba lañ jànge waaye buñ toogee ñoo la gën a nuruy taalibe ci seen wax ak ci seen jëf ak ci seen jëflante loolu nag du école Syllféri école Sëñ Touba bi nga xam ne nii moo bi Syllféri defee 1882 Sëñ Touba 1883 si sensé am boobu moo leen andi système boobu mu sensé ci 80 1883 yéen ñii ñëpp moo leen andi. ñi ñi ñi dugg ci ñi ñi jóge ci daaray nasaraan yi te boo leen gisee ñu ñu ñu ñu gën laa nekk taalibe système euh, changement boobu la waaye du école bu doon école Schulfer bi ya yàgg nañoo yàqu. effet itam mënta ñàkk effet daanañ ko ci seetlu ndax su fekkee yow da ngay dañ laa coloniser ngay jàng téere kala coloniser woon. di jàng eh, eh, di jàngal ci làkk kala kala colonisé woon dégg nga ba toog di jàng ci ci système eh, système éducatif kala colonisé woon di tiitaroo diplôme yàlla kala colonisé di jox kon faw mënta ñàkk am effet ci nit ki mënta ñàkk am effet ci yi ñu ci daan faral di seetlu nag mooy nit ki bu masaa nekk di jàng ca école ca àll ba di avancé di def ay examen di di avancer day dem ba ci yàgg mu jàpp ne mën naa dem sax bañ koy baase ci seeni àndandoo ñañ war a sëyal ak yépp ñu koy baase ci ku jàng tubaab loolu dañ ko cee yàgg gis euh, lii lépp nag c'est négatif yu négatif te dafa am ay conséquences économiques graves ndax su fekkee kii jàng ba xam daan sàmm wala muy napp wala mu muy bay xam gam xam français man koo liir man koo bind man koo man koo wax tax mu xeeb mbay xeeb sàmm xeeb napp kan moo ma war a bay kan moo war a sàmm kam nag mooy ki xamut waaw ki xamut ki xamut kon moo war a bay moo war a sàmmi moo war a nappi ndax yow xeeb nga mbay xeeb nga sàmm xeeb nga napp ba ba ba sa sa sa fa nga dëkk dem faneen kon ki xamul mooy liggéey ci wàll googu kii xamut nag bu liggéeyee bokkut ak ki xam mu liggéey comme ay da am ay conséquences économiques am ay conséquences économiques man États-Unis gée ma nekkoon baykat ya ñoo fa ëpp alal ay dip baykat boo gis ay diplômé la bëgg ñu koy jàppale ci mbayam sàmmkat boo gis ay diplômé ñooy ñëw di ko jàppale ci ci ci ci ci nappam ak ak ak càmmam waaye yow boo doon bay wala nag boo xësee jàng rek yow la ngay tiitarooti mooy ay bureau jox maay directeur naa nga maay kii nga xam ne lañ lay nomee loolu moom ngay doyloo ci wareef sa mbay te fekk la nga waroon a def mooy sa mbay moomee nga jàpp ca njàng moomee ñëw dimbale la ci waaw njàng ma nga jàng ñëw dimbale ca càmm ga dimbale la ca mbay ma bu ko defee nga développé ñaareel ba tam la ca nekk tam duñu duñ ko xam ba di ba di ndamu ci kaw ñeneen ñi jàngut mooy ki jàng ba am lam am ñi jàngul lañ ko fayale soxna see toog di jaay caaf fee wala kee di dawal sareet wala kay jaay këriñ fee bu demee ci boutique ba jënd lam jënd yooyu ñu dagg moom la ñu yóbbu trésor public jël ko di ko dundalee école ya ba tax mu mën a jàng kon moom la mu waroon a xantewu bu génnee ca njàng ma mooy mooy mooy fexe ba liggéeyal réewam ngir ñooñee ñëw doole dañ daan dagg ci seen i yëf di ko jox ba tax mu am lii mu mën a def loo xam ne ni ñoom ñëpp dana ci gis seen bopp loolu moo waroon a nekk mébétum képp koo xam ne ni jàng nga ba ak si kawe waaye en général euh, loolu daawuñu ko ci faral di gis la ci tege mooy li ñuy tuddee li ma doon tuddee léegi ay débouché académique xam nga booy jàng da ngay jàng di progrès di dem léeg-léeg nga jàng ba am boo nga def xam nga euh, primaire secondaire ak yooyu boo boo de waree dem lycée te mënoo dem lycée ndax amoo lycée amu fi wala sori nga lycée sori goo xam ne nii mënoo faa dem wala lycée yu doyut na mu war a doyee loolu yépp day am mbooloo mu dajaloo moo xam ne nii duñ xam fuñ euh, seen njàng du yegg am ñu rëcc dem bac buñ demee ba am bac amuñu amuñu mënuñoo dugg université ndax université yu doyut wala amuñu fa place wala orienté wuñu leen loolaatam tam nekk moo maneen mbooloo nga xam ne kon day mel ne kon état bi dajale na mbooloo mu baree baree bari tardeel leen ci ay années yu bari te jëmewu leen fenn te jëmewu leen fen te ñoom xës nañ xeeb euh, lañ nekkoon ndax jàng nañ ba xaw a kawe tuuti ba nekk intellectuel euh, léegi xeeb nañ fañ jóge woon te àgguñu fañ jëm bu ko defee dañuy tëggatéem bi loolu tam ay problème la waaw dañuy tëggatéem bi te ñoom la plupart du ñu mën a euh, am am kii dañuy toog rek. léeg-léeg ñu dugg ci gaal yi wala bu ñu mënee tukki wala ñu nekk di kaar après barrage dégg nga léegi débouché professionnel itam mooy ñi nga xam ne moom jàng nañ ba pare ba nga xam ne war nañoo liggéey te yàlla def liggéeyuñ ñoom itam ñu gën a mën a créer am réew ñii ci lañ bokk ndax dañuy toog jàpp ne faw état bi moom daa war a def effort pour wutal leen liggéey ndax jamonoy Abdou Diouf maa ngi ko maa ngi koy fàttaliku ay maîtrisards yoo xam ne nii dañ leen a yu bari tey loolu tam injustice la ndax justice amu ci ndax yow déjà état bi ñàkk na xaalis bu bari ci jàngal la ak formé la nga wëlbatiku nag mu war laa wutalati liggéey mu ci jëlee ko ci trésor bi eh, joxati la alal ju dul jeex boobu ñu bari lañ woon ku nekk ñu jox la xaalis bu bari xam naa ñu fii di mag dinañ fàttali ko loolu ku ci mel ne saawaalo bi dina ko fàttaliku ak ñan ñenn ñi ci jamonoy Abdou Diouf la xaw naa yàgg nag waaye ñoom ñëpp bañ leen ko joxee itam dañoo perte waaw ndax système bi ñu leen formé système ba moo baaxul ndax da ngay kañ ci jox xaalis day daal di dem ami boutique jënd ab costume ak karawaat jëndi dàll jëndi chemise dee di daal di tàmbalee jël jëndi moto wala mu jënd R4 euh, bu samdee mu war a génn tuuti ngay def xaalis ba jeex waaw xamuñu nu lu ñuy liggéey parce que formé wuñu leen ci ci loolu ci ci mën a am tuuti dem ak sa bopp. waaye bawal bawal bii génne ci sunu système bii nag boo ko jógalee ci daara ji du jox doo ko jox dara de da naa ko demal rek mu dem nijaayam may ko ñaari junni mu jël ko jënd ci ay eh, eh, lu muy wër di jaay am at lay dem defu taabalam fenn ci koñ nga rombaat ko fa ma neen an année mu daaj kantin nga fi beneen année fekk muy ab boutique nga rombaat fi beneen année mu mu mu yor ab quincaillerie yi nga laaj ay nga gëj koo gis tuuti laaj ko ñu ne la ba nga dem Chine di importer. te ba muy tàmb niyaayam ma ko joxoon ñaari junni ñaari système yi ñoo bokkul ndax système boo xam ne nii yow boo xëyee ñu gàdd la saak sang la ba nga seet diw la eh, dugal la ci ab école cëppeel la école boo wàccee ñu jël si la dafa bokkute koo xam ne nii dafa nekk ca ca daara ja nga xam ne eh, lépp day da koy débrouiller boppam waaw mooy débrouiller lépp boppam ci biir daara ji daara ji lu mu xat-xat dina am lu muy defal boppam kenn du ko lalalub lalam kenn du ko lu ci bari kenn du ko ko defal lépp moo koy defal boppam kooku bu génn gi muy génnee la jom jom jooju moom moo koy moo koy moo koy moo koy booster moo koy yóbbu moo tax dañ koy xool sax ci ñi nga xam ne ñi ñu ñoo génne ci système bële ak ñi génne ci système bi ñi ëpp alal ci àdduna ci ci Sénégal ci système bii lañ génne sunu système bi génnewuñ ci système be système bee moom ñi ci génne te ami alal dañ ko randal dañ ko randal dañ ko randal maanaam xam nga fonctionnaire mënta am xaalis businessman moom moo a am xaalis fonctionnaire moom warta am xaalis saa yu amee xaalis rek war nañoo xool xaalis bi fu mu ko jëlee ay milliards soo ko déggee ci ab ministre wala kii na nañ xool lu muy def ndax salaire bi du ko ko mën a may kon fu mu ko jëlee waaye euh, li mën a mayee alal mooy ngay liggéey rek liggéey booy liggéey nag nii lu ne mën nga ko am lu mu mën a doon rek man waaw ku mel ni Jili Mbay alaaj Jili Mbay ku mel ni alaaj Njóge Kebe ku mel ni alaaj Baara boobu ak ñeneen ak ñeneen bu njëkk sax milliardaires yi dañoo bari wutoon moo tax nga naan alaa ji li may alaa mais léegi yu lu bari la dañoo bari lool te ñépp nag jóge ci système bee de ci système bii la jóge waaw système bee moom ay benn benn rek la euh, léegi lii lépp nag dafa waral réew mi euh, na sax na sax mooy fi ñu waroon a àgg àgguñu fa. Euh, damay joxe benn anecdote gis nga sama benn xarit bu ñuy wax Matar Mbacke dafay jàngee univer euh, benn université yu ñuy wax Stanford bu nekk Californie seen euh, ki leen di jàngal oustaz bi da na wax ne mille neuf cent mille neuf cent soixante Corée ak Sénégal ak Singapour ñoo tolle woon seen PIB ñoo tolle woon PIB mooy produit aliment euh, euh, produit intérieur brut mooy am réew li muy am ci année bi bu ko dajalee doon ko séddale waa réew mi ku nekk la nga cay am loolu la ñuy wax PIB seen PIB ñoo tolloo woon en 1960 léegi Singapour Singapour ak euh, Corée raw na leen loo xam ne ni kenn xamul nu mu toll léegi mu ne nag mu ne mataan mu ne yéen étudiants yi est-ce que xam ngeen lu ko waral ñu ne ku nekk wax li nga yaakaar ne moo ko waral mu ne leen bu ngeen bëggee xam li ko waral ku nekk na jël sa téléphone nga xool dëkk Séné dëkk sàngam ak ban actualité moo fi nekk ñu jël xool seen mu ne dem leen Sénégal ñëpp dem senegal actualité bi mais li ngay gis lépp mooy diw tooñ na diw sàngam diw euh, maanaam euh, saaga na kee kee di génne na ay audio kee nangam na kee nga xam ne ci débat yooyu lañ nekk fee keneen ne man de li ma gis mooy ab stade bu ñuy kii ay ay ñeene ay mbër ñeene ki nga xam ne li ngay li ñuy gis lépp ci ay fait divers la ci ay kii la jëm jëmul ci xam-xam jëmul ci liggéey waaye ci ay waxante lu ñaaw ak ak yooyu la jëm yi ay sport la jëm ñii ay làmb la jëm ñii ay eh, laneen la jëm léegi mu ne bàyyi leen dem leen Singapour ñu dem Singapour li ñu wax lépp ci xam-xam la jëm ak ci développement ndax ñi ngi def ba ba nga ñi ngi wax bu dee Corée ñi ngi gis maam naka la ñuy def ba fii ak 1900 2030 euh, euh, auto essence duutu dawati auto électrique rek mooy mooy daw nga xam ne débat yi ci loolu la léegi naka la ñuy fexe ba ba ba ba ba euh, maanaam pollution d'air bi ak pollution nu muy nu muy wàññeekoo nga xam ne ñoom débat yu kawe la ñuy waxtaane mu ne bàyyi leen da demaat ci dëkk sàngam nga xam ne dëkk yi ngay gis yu développé yi ci lii la ñuy wax dëkk yi so mu ne leen lii nag mooy développement bi parce que moo waral ñi développé ñi ñàkk développé parce que ñiy développé mooy nit ñi nit ñi ñooy développé nit ñi nag ci comme ci lii la wax loolu mënta développé ne leen leen nag affaire bi loolu la léegi nag loolu moom ma poussé woon ma ma ma ma def benn gëstu bu ndaw ci diggante Corée ak Sénégal li ma ci gis mooy mille neuf cent soixante mille neuf cent soixante man ci laa juddu ca ca ca ñaari at après mille neuf cent soixante deux laa juddu dégg nga Sénégal PIB mi ngi nekkoon deux millions sept cent Corée nekk deux millions sept cent xam nga ñoo tolloo man booba maa ngi fàttaliku bu baax pas 1962 ndax parce que dana ji waaye 1960 yi 70 yi amoon na oto bu ñu wax gaynde xam na yéen du ngeen ko fàttaliku waaye saawaal dina ko fàttaliku xam nga maag saawaal ñoo ñoo ñoo ñoo fi ñooy mag ñi nag <laughs> sëñ Allé moom daa bi jaaw waaye maa ko mag. 113 la. 113 waaw mi ngi wax xam nga. yu oto gaynde man dugg naa ci. Sénégal bu ñu la nee wax ne 1960 daan nañ monté oto gaynde da nga naan déedéet c'est pas vrai. autosuffisance alimentaire dañ koo amoon man Kër Mañaaw Silla ga ma daan jànge dañuy bay ba ba nawet bi jeex ñu am juróomi sàqi njuróom juróomi sàqi njuróom xam ngeen sàqi njuróom xale yi duñ ko xam mooy juróomi mètre ba wë rëdd mu wër nii. jëm 4 mètres ci kaw 3 xaw ma 3 ci kaw ñu duy ko ba mu fees dañ koy semb dañ koy semb nga xam ne ñi ku aay rek da ngay dem jël booj ji def sa dugub kii daanañ lekk ci kii bi euh, du euh, benn sàq sàq mi sax du mën a jeex benn sàq mi sax du mën a jeex <coughs> dégg nga loolu man gis naa ko gis nga jamono yooyu ah. hmm. ni ma toogee waaw waaw jamono yooyu Euh, Singapour xam nga lan la taloon bele bele bi mu daan bay di ci defar spaghetti bay ci lu doy ngir lekk ko moom la taloon 1960 Sénégal moom mi ngi amoon autosuffisance alimentaire ba pare di defar di monter oto gaynde PIB nekk 2 millions 700 Corée moom xalaatul lu dul bele bi muy bay mu fexe ko mu fexe am lu mu ci dunde amuñu woon dara. Sénégal moo leen rawoon léegi est-ce que xam ngeen ne deux mille deux mille vingt deux bii xam ngeen PIB Sénégal fan la toll su ma leen ko waxee sax da ngeen da leen di jaaxal trois millions trois millions deux millions sept cent moins trois millions xam nga trois cent mille moo moo ci topp kon mille neuf cent soixante ba léegi seen PIB trois cent mille moo ci topp. nga xam ne bu ñu doon séddalee alal yi réew mi ku nekk ci ñun ñi 3 millions ngay ngay am alal yi jeex Sénégal gaynde gam doon defar léegi Jakarta sax defaratu te daana defar gaynde bi 1960 xam nga da ngeen den dégg ñu naan Lat Joor nee na raay bi du fi jaar ñu dem ba vingt 2022 ñu naan ay raay nga xam ne jamono yi waroon naa fekk Sénégal fépp fenn du du désert ay ay train yu moderne ndax jamono yi dafa yàgg waaye dafa mel day day reculer di dellu gannaaw autosuffisance alimentaire amatul foo masaa dem ñuy da juróomi sàq juróom loolu amatul de dangay bay ba kii benn sàqum juróom sax du fees gerte doo ko am boo jàng ci tuuti moo tax exode bi bari ñëpp dem ci Dakar wala Thiès di wuti lu am àll bi vide doo fa gis kenn te bu njëkk àll bi daa fees dal li ma la wax ay fee yoo xam ne man dama ko dund di ko wax du ay xam-xam sax ñëpp a ko xam ñii fii mag xam nañ ko xaj na ñiy gone ñoo xamul sax li may wax waaye li may wax moom xam nañ léegi Corée ñu ñëw ci Corée senegal moom lam amoon lam amoon ko us néew perte na ko ba pare gën a reculer léegi Corée ñi ngi defar Hyundai oto boo gis Hyundai rek Corée la jóge boo gisee Kia oto bu ñuy wax Kia ñoom ñoo koy defar ak yeneen oto ñoom ñaar ñaari oto yooyu ñoo ci gën a siiw Samsung moom boo gi boo woon portable yu ci bëri Samsung ñu ci defar façon lu ne seen autosuffisance alimentaire boo doon bu ñu seen doon séddale seen seen xaalis ku nekk yaa ngi am cinquante million quatre cent mille cinquante popi benn nit bu nekk day am cinquante millions quatre cent mille ñun depuis mille neuf cent soixante ba léegi bu ñu ko doon séddale trois cent mille moo ci tegewaat ndax deux millions sept cent la woon loolu ak dellu gannaaw la boo xam ne nii li ko waral te entraîné ko mooy système bi système bi moo ko moo ko waral parce que système bi moom moo teg ñiy gouverner waaw ci système bi système bi mooy ndey ji ndey jooju nag fi mu toll waxtaan wi mën naa ne xaj na dañ koy wax ñu am luñ ci xam waaye mën naa ne njariñ lu du bari xam nga lu tax njariñ lu bari mooy tànk système bi jëlewuñ ko fi ñu tëggaat ko ci système boo xam ne day dëppook suñ socio culturel lu réew du du mas a changé mënuñu dem ci même système Iran bi nga xam ne nii Shah bi dàq nañ ko xumay ni ñëw dañoo jël ñetti at pour chance seen système ñetti at yoo xam ne nii jàng amul dañuy toog di liggéey ci système bi di liggéey ci système bi ba tegaat ko ci yoon ñu doog a relancer nag moo tax gis nga Iran boo defaree avion mu defar ko boo defaree missile mu defar ko boo defaree anti missile mu defar ko wàllu nucléaire loo def mu def ko waaw Euh, loolu nag euh, <coughs> li may tëje nag yeexale ko xañ na naa jox ngir yaatal ñenn ñi ñu ñu def li gën a am solo man daanaka damay ubbi ay buntu rek ndax wàllu éducation dafay yaatu li nga ci mën a euh, wax dafa bari te comme waxtu waxtu wi dafa gàtt te am na ñu ci war a jël dama koy tëje ci wax ne système bi nga xam ne nii moom la fi siñ Tuubaa teg mooy te mooy système bi ñu donn ci yonte bi sallallahu alayhi te sëñ Tuubaa yeesalaat ko ci rabbi asxaabaka bil himmati jooju mu joteen ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam système boobu moo mën a doxal suñu réew suñ bëggee mu dox ci système boobu lañ koy teg euh, système boobu dafa boole ñett maanaam ñetti dimension yi nga xam ne mënta ñàkk dimension spirituelle ak dimension intellectuelle ak dimension matériel yooyu yépp la boole système boobu nag moom la sëñ Touba moom la yàlla jox sëñ Touba sëñ Touba nee na bil Mustafa lii banal quduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kabari système boo xam ne ni day éradiquer al aza mooy lor lépp luy lor day dañ al jahlu lépp luy réer réer day dañ lépp luy coono day day dañ ñetti yooyu nag moo lamboo ñetti dimension yooyu dimension spirituelle dimension matérielle ak ak ak ak ak dimension intellectuelle yoo loolu nag euh, dafa feeñ ci sëriñ bi ndax sëñ bi xelam dafa ñaw ñaw goo xam ne nii <clears throat> moom ci boppam bind na ne zaka o aqli kaada mislal wax yi nee na sama sama sama ñawu xel sama xel ni mu ñawe dafa xaw a sax mel ne wax yi révélation sama xel dafa ñaw ba sax xaw mel ne wax yu la loolu nag moom la Edom Kodjo xam Edom Kodjo bu ngeen ko xamul nekkoon na ancien premier ministre du Togo nekkoon na itam secretaire général de l'OUA moo même Edom Kodjo dub murit dub jullit dub sénégalais dafa wax lii ci sëñ Touba daf ne l'Afrique n'aura rien à envier aux continent continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'homme telle que Cheikh Ahmadou Bamba te newul le Sénégal n'aura rien à envier aux autres pays waxul loolu l'Afrique la wax toute entière l'Afrique Afrique gépp suñu sukkandiku woon ci xalaatu sëñ Touba ak ak ak ak ak Afrique du ñee Europe du ñee Amérique du ñee Asie du ñee benn continent te ki ko wax du man ki ko wax du kaneen ku dul man ki ko wax du du du koo xam ne dañ naan daa doon ab jullit moo tax mu wax ko wala daa doon ab morit moo tax mu wax ko wala daa doon ab sénégalais moo tax mu wala daa euh, euh, loolu lépp dafa jàngat sëriñ bi dafa jàngat sëriñ bi ba xam ko ba def analyse am daal di def synthèse am lii kon ñun dafa mel ne suñu bëjee sukkandiku ci loolu dañuy delluwaat ci sëñ Tuubaa mën naa cee jeexale rek ci joxe ci ci ci waa kër sëñ bi ku mel ne sëñ Abdou Borom Dër bi masala fii ci Daaru Rahman nañ fa togg ceeb boo xam ne nii lépp du génn Daaru Rahman ceeb bi foofu lañ ko bayee biir Daaru Rahman jën yi foofu lañ ko nappee parce que dafa def pisciculture da doon bay jën dégg nga diw li gerte gi foofu lañ ko bayee foofu lañ ko segale légumes yi foofu la ñore amul dara loo xam ne nii da koy xool ci añ bi ñu ne la export bitim réew te loolu yàgg na bu ñu jëlee soxna musli mu sëñ Touba moom femme d'affaires la woon boo xam ne nii foo ko fekk day muuru kaamil bi benn bis bu nekk mu wàcc kaamil nga xam ne foo ko fekk làmmiñ waa ngi jàng alxuraan mais teewul ci wàllu industrie li mu ci def parce que sox soxna musli rek a waxtaan mën naa jël fii une de temps li mu li mu li mu def ci wàllu industrie li mu def ci wàllu agriculture dégg nga li mu def ci wàllu textile ak ak yeneen ak ak ak ak ak wàllu commerce jamono yooyu nga xam ne euh, am na benn usine bu ñuy wax Grand Moulin Grand Moulin soxna Musli ci boppam moom moo commandé woon matériel bi ki mu ko séqaloon ñu affecté ko gannaaw bi matériel bi ñëwee ñu dévié ko jox ko Grand Moulin waaye soxna Moulin soxna soxna may soxna Musli moo ko commandé woon loolu lu yaatu la lo loo xam ne nii moom dangay wax ci vie soxna Musli mën a wax ay jaar-jaaram boo ko bëggee wax lépp dafay kii bu ñu boo gisee sëñ ba ndumbe tarbiye nit ba mu nooy nga xam ne day mën a lemu comme aw sagar moom sëñ Saaliwu danaan wax naan moom rek moom ma ci doy sëñ ba boo jëlee Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima Fall maanaam ak taalube maanaam fonk sab sëriñ ak jox ko gëddaam moo moo moom rek moo moo moo nee na moo ko ci doyoon léegi nga xam ne sëñ Tuubaa moom dafa defar ay nit yoo xam ne nii kenn ku ci nekk dafa mel ne comme état nga xam ne ku ci nekk da ngay amee loo xam ne nii yow rek yaa koy maanaam yaa koy incarné te doo ca am morom mu am ko fépp nag mu daj senegal yépp ci koo xam ne ni mësta libre li ci gën a garaaw mooy koo xam ne mësta libre mësta libre benn yoon nga xam ne bi ñu ko jëlee fii yóbbu ko ba ba ni muy ñibbee waa Touba mësta libre ci ay loxo la nekk teewul lii lépp mu réalisé même këru daaru marnaan gi bi ñu koy rëdd ma nga ma dafa dem jënd wëttéen acci ko géométriquement mu mu mu mu takk ko ci ay kii euh, euh, fu fu poto war a nekk mu fas ko ba kër gi àgg mu taxañ ko def ko koli mu ñëw mu bind lettre ma maam Thierno maam Thierno dafa ñëw lembar ci rek tracé kër gi moo tax mu ne sa kaa waa aqli kaa de misral wax yi sama dimension intellectuelle moom wax yu ñoo ñoo ñoo xawee moo tax edem ko ju waxam ji ne l' Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie ci doom tel que Cheikh Amadou Bamba wax ju dëggu la ju wér maa ngi gàttal fii di leen sant leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh لم يكن المصطفى محمدي سرا وجرا في البرايا صمدي لم يكن المصطفى محمدي سرا وجهرا بالبرايا صمدي مدى لنا